engagement très profond euh, dem nga sax bay annoncer l'investiture euh, de de de Ousmane euh, et puis nga ànd ci ak benn benn fukk boo xam ne mhm. après. Mhm. ça fait douter sur le détachement bi nga war a am en tant que autorité est-ce que risque bi nekkul foofu. non xam nga lan moo tax tey la waalo gën a aay man chaque jour su ma xëyee maa ngi bind ci Ousmane Sonko. mais lu tax. voilà xam nga man dama am lu ma gëm man. man te noonu laay taxawee. bu dee sa engagement euh, sa détachement dafa mieux wu. en dans un engagement partisan aussi il faut le dire et l'assumer. non fi ma nekkoon laa nekk ba tey xam nga lan moo tax à un moment am na loo xamante ni jaay doole la tey Ousmane Sonko bu ñu ko parrainé bu ñu ko parrainé c'est-à-dire match de football sax ñu interdire ko. Sénégal titre de respectabilité am deux mamelles la démocratie ak état de droit amul leneen amul leneen moo tax am na ñu bëri dañu daan taxaw l' actuel garde des Sceaux da daan taxaw di wax ni la Sénégal est l'iceberg de la démocratie en Afrique xam nga bi ñuy déglu loolu ñun man bi ma koy dégg boobu maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi première année ou deuxième année à l'UGB. Sénégal nekkatu ko. non mais Sénégal dafa devenir un régime hybride d' électorale. l'expression un régime hybride d'autocratie électorale l'expression est du parlement européen parce que dañuy xayma xam nga sooy xayma régime hybride d'autocratie électorale mooy lan maanaam les règles sont tellement compressées que élection yi ñuy def certes ce ne sont pas des élections ce sont des élections yoo xamante ni matériellement dina am mais elles sont pas inclusives def nañ ko Khalifa Sall def ko Karim Wade donc boo xoolee les libertés sont étouffées il y a une discrimination en fonction et en raison même n'est-ce pas de de l'identité politique maanaam képp kuy opposant tey le président Malick Gakou combien de fois lañ ko arrêté tey ci yoon wi PUR seen parti PRP seen parti PASTEF xam nga lu tax Ousmane Sonko les attaques qu'il a subies se confondent avec de parti PASTEF parce que mënuma gëm ñu ñëw ñu ne dañuy topp Ousmane Sonko ñu ne dañuy dissoudre parti PASTEF di dissoudre parti PASTEF le même jour décret bi sax kenn gisagu ñu dem dindi ay posteram ñu dem dindi photo alors qu'il a des de recours. non au de avant même les voies de recours ñëwaguma c'est-à-dire l'acte de dissolution n'est pas disponible loolu la ñuy tuddee la voie de fait en droit administratif c'est-à-dire que ki def loolu dafa def li ko neex.